ndeysaan mi ngi noonu sixième combat baa nekk noonu ci biir géew bi di dox si diggante Pape Mor Lo Junior moo leen wan ginnaaw a Kambel moom ngeen jàkkaar lool ndeysaan aadu bi mi ngi wax ak ñoom di leen wax li régal ngi nangu ak li mu bañ ndeysaan tey la samedi 7 tey la jeudi 7 mars 2024 journée jeunesse production la ndeysaan waaye grand combat bi dox ci diggante Thiatou Fouta ak Fils Ama waaye ñu ngi noonu ndeysaan Pape Mor Lo Junior moo leen war ginnaaw Kambel moom noonu ci biir géew bi ndeysaan laay ñu ngi noonu ñaari mbër yaa ngi nekk noonu ndeysaan te jàmm nga ci ka ñaari mbër la fi am am nañ benn victoire attention attention laay laay la laa jeexagul de <laughs> Pamalo mi chef dis nee na ko ragaluma loolu mbër la Pamalo attention attention attention lu nar xew Kambel lu mu bëgg la la bëgg daa bëgg imposer Kambel daa bëgg a imposer attention laay laay la la Kambel Pape Mor Lo Senior laay laay waaye <laughs> waaye Kambel na def attention Kambel na def lu nekk ci moom ndeysaan attention doolay biir la attention Pape Mor Lo Junior Kambel Pape Mor Lo Junior boobu nekk sixième combat bi attention attention attention Pape Mor Lo eh, yaa ngay bëre nee naa ñu ngi boo yaa ngi bëri. day day la Pa Mor Lo Junior Kambel. Pa Mor Lo Junior Kambel. jàppante nañu ñoom ñaar. waaw waaw. ba léegi ñu ngi jàppante dégloonte ñoom ñaar ndeysaan attention Kambel lu mu bëgg waaye ndeysaan waaye kus baa ngay bëree. aussi Pape Mor Lo Junior bi ma ngay bëre ndeysaan Pape Mor Lo Junior Kambel jàppante bi yàgg na waaye nag ña ngay bëre attention Pape Mor Lo Kambel da koo bëgg xar waaye Pape Mor Lo ngay rasu attention mboot ba waaye may na attention laa ilaaha illallah waaw waaw waaw man bëgg naa lii man bëgg naa lii ndeysaan amul loo mi darang ji la champion la def na si biir kay ndeysaan mu ngi def lu doy waar ndeysaan moom Pape Mor Lo Junior waaye Kambel tamit champion la Amadou Saliou ndeysaan ay xale yi ay xale yu mën bëre la fi indi waaw Omar Sall ndeysaan amin attention Pape Molo Junior Kambel Pape Molo mi nga waaye euh, Kambel la ngay tànn waaye Pape Molo day rasu a génn si arbitre bi joxe avertissement arbitre joxe avertissement wala da leen jox avertissement jox na ko avertissement nee na ko da ngay rasu waaw day rasu moo tax waaye lamb la lamb ji jeexagul Kambel waaw Mor Lo junior waaye arbitre bi mën na leen jox verbal ndax ñaari xale yaa ngi bëri waaye am na lu muy wax waaw Mor Lo junior am na lu muy signalé arbitre bi arbitre bi nee na ko bëri leen. mooy tus noonu ndeysaan attention Pa Modou Lo Junior Kambel attention bu jàppante waa dee war di jeexee foofu Pa Modou Lo li def noonu Pa Modou Lo li def noonu lan bëgg lan la waaye na méttu loxo bi dal dóore mën na jël abi mi naa leen jàpp leen attention daw na jël ko Kambel daw na jëlaat ko jeexagul attention mbot ba laa ilaha illallah woo Kambel Kambel laa ilaha illallah daan na ba amul benn werante bene jàmbagan si Kambaaw bala ndeysaan dina waa jàmbagan si Kambaaw tey am nañ fi ñaari mbër ndeysaan am fi ñaari victoire waaye ndeysaan seen ko ngi noonu moom ndeysaan mbërë mum indi bu daane da lay sujjóorloo laa ilaaha illallaah ndeysaan Pape Mor Lo ma ngay jégalu ay supporter am waaye bëre nga bëre nga ndeysaan laa ilaaha illallaah lamb la ndeysaan laa ilaaha illallaah bëre nañ ndeysaan bëre na bëre bi lamb la si doon ndeysaan ndigal la koy bu Grand Médine bu Grand Médine moo ko indi mi ngi noonu ñëw di ko encouragé boobu nekkoon sixième combat bi ndeysaan ci biir géew bi doon tax ci diggante Kambel ak Pape Mor Lo Junior cey lamb